Yeah. Okay, the freezing number one lady, the kabugueti, hanayo, dungawerity, take some business, your party attack, Don't Duranga Dante, Rutakala attack, your job, the taluma enemy, enemy, enemy, hey, hey, the freezing number one, someone Emily. Oh. Yo, ni xamu fu jam lai, laay laata jaga ñu jóge sama bopp laa gëm mooma ëpp intérêt Black Diamond man maay ki yellow sama avance ko jël na leen di ko delloo levul ma tolloog sa bos dafa wuute ba duggee ci lay di bi seela lay kut bu te ba wolu yàqu da yow maama bu jomi ma maa ngi ci job bi rëm tëm bi ma génn gam foog ma indi tam rap bu ñëpp def bu gën a tëb duga ko seeni bopp maa ngi gën di wokk yootu waarag yaa ngi ci ginnaaw ma maa ngi kanam xool ma ci jàmm ma maa ngi ci salaam xama fu ma jóge fi ma jëm a gën a bi jona ma kenn ma baare bitch Hey, kuy boodi Yo, man, my body. Hey, my fucking body. What up? Senegal Plus, what's up? Okay. Uh-huh, uh-huh, hey, hey. DJ Chick. <laughs> Senegal Plus. Oh, number one lady, lady, lady, number one lady. Hey, hey, number one lady, lady, lady, number one lady. Love Sick, what's up? Okay. Uh-huh, uh-huh, uh-huh, oh, yo, dans ma idée et magie, flow ou sauf ça pas les jumbo. Et showgirl, the crazy lady, oh no. Babo chimbaga fier, chigueto la judo. Foglinga, fuck you, espagnol, hido the puto. tegi askam aji black yoon ñu laayu kaaba saal bi daaj la def ma xaat kër tàngooru tamba underground queen moo des tax na mu ma trône MCs yi def may reetaan ils sont tous drôles dama mel ni Timberland ci suuf amul ku may sampi ñaata ñoo doon siisu tey ñu mujj tey seen gémmiñ man la jigéen jigéen ci mic man ci mic munchiwa gunchiwa chata shakat bari dogo dogo neck like neex lay tele jongi ci free flow bi ful fulale bañ bañ bëgg su ma neexee di mbëlle boo xamul bul ma tuuru bant bu gudd nga may laale sëy summer, rock a summer. Then when you detect it wax ko sa maam newuma asamaan maa ngi a man. hey then when you detect it wax ko sa Why am a new queen yo. Why am a new queen I'm a new queen. Hey, yo, Can you en bund hurtig beat, bass, melody, hip-hop, Kial Sane this is the new queen du kenn maa la wa ko ñi ma doon xaar yegg si naa ma ci kër gi tay ma xafiña number one lady bi ful tay foo ko dul fooge saf sàpp yàpp dee bi bi ci waañ bi laa ko toogee aka ma sori yow xamul loo fi ma jógee li may def foog mu dëb gol may dooru waane jongee su ma bàyyi wap daa fekk ñu suul ma si ma ceer li may def laa gëm wax leen ñu xam ne dama ci fier rab jolof la ma love di ko dundal comme doof amul dara lu may xoof ana ñu neewoon léegi ma off man nga bëgg time mu la wax sax heure bu jot De mai bine sau mai wine, ba mai mă lep, le mă băgă Da mă cawe ci nyom, waral munun mă dap Lo hobi sen na comun na băgă mă dap Say, hey, eu racă sumă De mai eu de check it, wacă să mam, ne uma asaman Mange aru zaman, hey, de mai eu de it, wacă să mam Why my new queen, yo? Why my new queen? Why my new queen? Queen, queen, why my new queen? Queen, queen, yeah Senegal, please. Yeah, DJ Chick, what's up? Hey, DJ Freezy, number one, number one lady. Okay. Down, yeah, if you gonna gonna lay down, my feet gonna gonna lay down, yeah, if you gonna gonna lay down, down, down, yes sir. you down for bar, more than getting jalouse. We go fi I'm down, do fi wanna call I'm not you feeling bad, putting on your job. Sagar sax buñ ko solid and you guess so. Li bare la xawma sax lu mu doon, bu ko gisee di nga bëgg ak ko mën di doon. Yàgg ma feel man nga barde, sama ginaaw gi moo lay daane. Yaa fi gonna going gonna lay down. My feet gonna gonna lay down. Your feet gonna gonna lay down. Oh, oh. Yo, là où on passe, on laisse des traces. Les jalouses pleurent, mais leurs mains craquent. Les gros popotins, c'est inné chez nous. Nous remercions la nature dans leur. Hey, nanka bomba bomba bomba bomba. Nanka bomba bomba boom la rumba. Nanka bomba bomba bomba bomba. Nanka bomba bomba boom la rumba. It's a party night to money dance hall, sexy lady to money bad gal. Ya puso nigga, diamond go twinkle. Nanko yung albo ko yerom ya fineko. Twag twag, move your body like a snake. Oh. Twag twag twag twag, it's your party. Twag twag twag twag, everybody. Twag twag twag twag, everybody. So Au up? Merci, Sénégal Plus.